dal leen ak jàmm euh, bokk na ci yéenekaay yu bari xëyandoo tey mbirum yoon àttewaat euh, dossier Prodac euh, Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko gannaaw appel ba ca mambay ñaar def yoon fas yéene càmbaraat bile le dossier àtte ko niki fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril gi ñu nekk mu ngi ci yéenekaay bi di Walf Quotidien di ñu dégtal ne ñaareelu jéego jëm ci googu lépp dossier Le Quotidien ne procès goo xamante ne jëm na ci appel spécial waa Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko ci bëccëg gañ koy àttewaat digganteem ak Mame Mbaye ci altine ja fukki fan ak juróom-ñaar ci waxtu jooje la ñu fas yéene atte ñaari député yu pur gannaaw fitna ga woon ca assemblée euh, nationale yéen kabidi le peuple quotidien di ñu dektal Ousmane Sonko ëllëgam mun na fee jaare tax suuf lool euh, ci wàllu euh, politique bu fekkee ne yoon attewaat na bile procès diggante ak Mame Mbaye ndax Ousmane Sonko du ci jaare am jafe-jafe doon candidat ci élection yi ñu jëm laaj la gu sampu mu ngi ci le peuple quotidien yéen kabidi direct news ne candidat yi nañoo yëg jublu waaye nag bari nañu lool te ba léegi kenn xamagul ña cay bokk ci yooyu la woote ak ñetul ñadul bokk njiitu réew Macky Sall ba léegi mbiram leeragul euh, ci euh, troisième mandat gañ koy lam-laameel euh, Khalifa Sall ba léegi yoon mu ngi ko tënk bokk na ci Karim Wade yoon mu ngi ko tënk Ousmane Sonko génnagul ci procès en appel ñeel diggante ak mambay ñaa bokk na ci tamit Barthélémy Dias mi yoon tënk Amadou Ba moom munagul yëglu ci jamono ji direct news ne ba léegi kenn xamagul ci ñi jota bàkku ci géew politique bi kan moo ci samp ndëndam ci élection présidentielle yu 2024 euh, candidat la ci yooyu la woote yor-yor bi xëy waxtaan ak moom docteur Abdourahmane Diouf mu ngi ñuy jàngatal nguruk Sénégal nguruk Macky Sall ci wàllu koom ne daanaka buñ ko doon xayma nguur gi dafa laaj koom-koomu Sénégal dafa nërmeelu ci fukki tak ak yi nga xamante ne njiitu réew Macky Sall euh, jiite na réew mi euh, jiital coalition Abdourahmane 2024 gis ne wàllu koom-koomu Sénégal nguur geeg nam ko sayto daanaka moo jaarul ci yoon ndax ci koom-koom geeg fi mu toll askanu Sénégal mun a guñ cee gis seen uh, bopp nguurug Sénégal fuñ ko ci doon séntu uh, daanaka lépp la uh, nasaxal ci jamono ji ci wàllu koom lan mooy doon seen programme ngir joyantuwaat koom-koomu Sénégal njiital awale wax na ci docteur Abdourahmane Diouf l'info xeeduñu dégtal fitna gi gane si géeg politique beek lu jëm ci wàccaayu élection présidentielle yu 2024 ab kuréel a ngi nii taxaw ngir jëmmal démocratie Eh, dal nañu ci nguruk Macky Sall mi ñu ne ci at yu mu jot a defagum ci boppu réew mi eh, defee salfañe démocratie bu Sénégal ñu bari amatuñu sañ-sañ wax dañ leen a xañ seen ak ak yelleef ñii ñu dugal leen ci kaso bi ñi ñu bundu xatal leen ba ci jamono ji daanaka eh, kenn mayetu leen fu ñu ñaxtoo ci tolluwaay réew mi doon lu metti lool Mamadou Lamine Diallo ak ay ñoñam ci googule kuréel yéen kabi di Dakar Times ne Mountaga Sy njiital port wax na jëmale ci njiit réew mi Macky ne soppi Sénégal tabax na lu bari ci Sénégal euh, te itamit jaarewu ko ci pétrole ak gaz bi yéen kabi di euh, Dakar Times moo ñu ko yëggee yéen kabi di source xëy di ñu dégtal euh, musiba gi amaat ci yoon wi jëm ci accident juróomi bakkan ñoo faatu démb ca yoonu Louga yéen kabi ne accident googee nag lu toll ci fan fanweer ak ñett jëlee ci ay gaañu gaañu yu méttee métti am na ci fukk ak juróom ya ca gën a méttit le yoon googule ak woto bu saaraan bis la goo xamante ne dafa mujjee saaraan ba kaabi di turbine jàpp ne jafe-jafe tënk tali bi accident yu bëri juróomi bakkan ya ca rot demb eh, ca yoonu Louga mel na ni nguur gi dafa seetaan ak askan wi ci seen i jafe-jafe ma anamatuwaay yi ñu ciy jëloon ñaar fukk ak ñett eh, poñ yoo xamante ne nguur gi eh, tegoon na ko ci taabal bi daanaka tabbina géej yéen cabinet tey ji bis yaa ngi ni ak njaga njaay wee di daw te daanaka ëppal nañu juróom fukki at ba tey ñu ngi ci démbek dikk bi tali beek yi na mu bindoo boo xoolee sax yoonu Kaolack Tamba Bakel daanaka noo jiitu fu accident bi di fu accident faral di am boo jëlee Louga ak mooy ñaareelu gox goo xamante ne accident yu bëree bëri am na fa boo ko xayma ci atum 2022 eh, ki ñu jógee yéen kabi di Le Soleil xëy du ñu dégtal waajal nawet gi waaja nuyoo si ONAS jël na matuwaay ngir fexe daal ba defaraat eh, canalisation yi la fa ñu mun ko génne eh, ngir ndox ma mun fa aw ci anam yu muccaay bi yéen kabi ne liggéey la goo xamante ne ONAS soobu nañ ca Walf jeune Sénégal soobu na ci wàccaayu aj Makka ren ji nguur gi jotoon na jël dogal ne euh, lu ëpp fukki junni ak ñaar ci ay ujaaj yu Sénégal Air Sénégal moo leen di yóbbu waaye nag loole mu jotul sotti euh, gannaaw dogal gi nga xamante ne moom la jëru ñu dénk wàllu bitim réew jël ab compagnie saoudienne euh, saoudien moo fas yéene yóbbu ujaaj yu Sénégal mu ngi ci Walf Quotidien yéen ki abi di stade xëy yóbbu ñu ca Ligue des champions bokk na ci tamit Chelsea ak Real ngonuk tey ji lay doon Chelsea bu Kalidou bali eh, fas yéene jàkkaarloog eh, Benzema bu Real mu ngi ci yéene kabi di stade yéene kabi suñu lamb ne xëy na dootul yàgg Ama Baldé dina jàkkaarloog Gris Bordeaux gannaaw la tukkee ca certificat ga ko tënkoon ne dafa am jafe-jafe ci wàllu wérgu yaramam waaye nag tey jii Ama Baldé wér na ne pare na ngir bëreek eh, Gris Bordeaux yéene kabi di suñu lamb moo ñu ko yëggee yem fu ñu jeexalee xeetu yéene kaay yi ci tënk daañu ci dikkat incha allah na mu gën a yaatoo